danaa ko doon danaa ko doon ba xëy doon ko. ndeysaan waaw. sëñ de sa cour bàyyi mbékkin xandin moo ma ne. Mhm. garab bu la sol nii ca fal Fall. Mhm. tey dama bëgg ngeen bàkk ma. tey nee na gars yi teg ndënd yi. Mhm. ñu ne ko nuñ lay bàkk mu da ngeen a ñay mënu ci Dakar dara lu mu gësëm gësëm ba ñay mënu ci Dakar dara lu mu gësëm gësëm ba mu génn sol garab bu naa mbay ma ne ko fal mu ne ma fi mag. mu ne ko xam naa fukk ak ñeent yoo la mag ku tema tok ci lalu serafal bu bu ko mëne nako def abdou sakour doon serafal da ko don sey abdou sakour don serafal da ko don da ko don bay cheikh kan na ma ci xayaan sama bay mudu kan duyori moo ma wax nema cheikh rafal musu ko wax fa njaarim nako ko mudu kan duyori mu fal faal mudu kan duyori mu fal faal mu ñetti yoon mu ma ngi dem kat waaye dinaa delsi way kër bu ma dese abdou sakour lay don sey waaw sey abdou sakour nag 1908 japp 1909 la gane jamono ca Thiès mm-hmm. te yaay Demba Sarr ay ndeyam. bañ béykat xam ni moo ma ne. Mhm. soxna Demba Sarr bi ñëwee fi loxol Cheikh Ibra Fall. Mhm. ab di ma xaw na faa am ab diir. Mhm. yàlla mooy ko takk ndeer. Cheikh Ibra yónnee ci sëñ bi. ne nag dafa bëggoon soxna si ñu ñaanal ko. sëñ bi bind ab téere. ñu takkal ko soxna Demba Sarr. 1908 am ñu ne 1909 sëñ Abdou Sagoor Fall gën a jamono Thiès. sëñ Cheikh Ibra Fall yónnee ci ku baax ki di laaj aw tur sëñ Tuubaa ne nañ tekki téere ba tur waa nga ca. Abdou Sagoor da ko indaale waaw da ko indaale. tey daa indaale aw turam daa indaale turam. moo tax mu daa ah danaa ko doon danaa ko doon ba xëy doon ko nee na man Abdou Sakkour. sant Thiam indiwuma ci mbaar mi <laughs> damaa mën illéer. damaa mën illéer waaw. sant Thiam indiwuma ci mbaar mi ci mbaar mi. ndeysaan damaa mën illéer. bàyyi si am di Moussa Fall waaw daanaka doonuma Seera Fall man Abdou Sakkour dama koo doon. tey doonuma ko man dama koo doon. moo tax sëñ Mor Ndiaye tombu del. sëñ Mor njaay mhm. dànq ko ñoom. Mhm. Baye Modou Manga rek ñoo xam sëñ Abdou Sakkour. ndax Baye Mor. Mhm. dee na dekki. tey dee na dekki. ma wax la lu garaaw Baye hmm. Mor Ndiaye tomb del waaw Baye Baye Malick Ndiaye moo ma ne hmm. wàcc na liggéey hmm. maag sëñ Maxtaar Jaw ba ndoggali ko ba teg ko ci kaw lal def ndox dara jàllut te boobu ko faatu rek li nga xam ñu xam ne kii dem na ci timis gi nekkete bi sëñ Abdou Sakor demee te moom yëgagu ko sax moom waxaguñ ko dara de ci saayir sëñ Abdou Sakor dafa dem ci guddi gi Baye Mor dem nee na ci fajar gi Baye Malick ne ma moom Malick mhm. ma ne Mbacke ma ne ko jox ma sama yére ma sol. Baye Mor dellusiwaat. Mhm. nee na bi ma ko joxee yére mu sol. Mhm. daal di dem ca bis ba ca xew-xew ba ñëw. daan na xanaa li ma def xaw na leen a jaaxal ne mun a Cheikh Rafaal fi ñëw ci timis démb. ne ma Mor ma ne ko Faar. mu ne ma gunge ma Abdou Sakho dañuy bàjjana. nee ko gunge ba mu yàgg Cheikh Rafaal na ma dëppal dellu doon ndax gunge yegg baaxut ca moo tax ma dellusi tey Baye Tomb kooku moom leneen la moom. leneen la mu ne su koo waxtaanee fii mu ne ko waxtaanee fii te a def. Mm-hmm. di tarbiyee Cheikh Ibra Fall. Mm-hmm. booba Cheikh Ibra ngi fi. Mm-hmm. beral sa yëpp sa ko tool Tomb deel ah, ah, nga xam lu ko indi. ba mu bérangoo ba dugg ca teerub Gébu Fall ba na day wutal Seera Fall ndox. saa am Cheikh tiim ko. teen ba sori loolu mun naa ah, Mor Ndiaye génnal non ko da nga ne ci biti soxlam ndox mën ci soxla lam ndox du ma géntaw moom ndox seer fall wëlbit teen mën a tëf mhm. sànni bàyyi moor bàyyi daw jël tok gaa tegal ko cheikh rafal loxoñ bubbee ya toy. Mhm. dal Cheikh ibrahim muna ki kan la ci fere yi mhm. ma ne ko maanaam njaay cheikh ibrahim dama ya dugon ci teen tanduk ay goj ne mu ne ko waaw mu ma te kenn yoru lay goj mu ne ko waaw dom. ne hé bi ngay xey ci man sa maqama ci sama borom ci ñent la tollu ñent moy kat waye bi nga duggé ci teen ba gën dom tomb na del xey ñent gonto juroom ñaar témir